salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziar noo ngi fii ci kër sëñ Jili Mbàkke ci kër sëñ Mudu Maamun gi toog ak sëriñ Mudu Maamun Mbàkke di taaw sëriñ Jili Mbàkke ñu yëkkati kàddu gi ci turam mu jox ñu ci ndigal ñu yëkkati kàddu gi ci turam ginnaaw bu ñu nuyoo mbokki jullit yëpp siyaare leen di leen jaajëfal ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne bokk yi ak taalibe yi ak dëkkandoo yi ak mboolem jullit yi taxaw nañ ko ci wàccug liggéeyuk sëñ Jili yi Khadir mii di baayam mu mel ne bi mu xewee li muy diis diis diis dafa mujj woyof ci moom ndax bokk yépp ñoo ko ànd ak moom bu geesoo gis ay waajuram gis ay rakkam gis ay jarbaatam gis ay doomi bàjjanam gis ay doomi nijaayam mu mel ne yëf yi dafa mujj nam diise woon ci moom diisaay boobee mujj na nirul woyof lu ci moom ndax lépp lu doon tiit mujj na dara tiitatu ko sëñ Mouhamadou Mamoune Mbacke moom sëñ Abdou Khadir sëñ Jili Mbacke mii fi bàyyi ko nee na mu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne dañ koo féete ci wàllug baay di ay rakki baayam ah, te sëñ Abo Mbàkke jiitu ja ak sëñ Mbàkke Anta ak mbooleem ñi nga xam ne ay baay lañ féete ci moom xew-xew bii nee na bi mu amee kenn ku ci nekk taxawe nga ko taxawaay boo xamante ne nii nee na moom bu fekkee doon na am lu mu war a tiiti tiitatul dara nee ñi nga xam ne itam ay mag lañ féete ci moom te sëriñ Cheikh Anta Mbacke moom sëñ Modou Rokhaya jiitu ca ak sëñ Mamor Mbacke mu tuubaatul ak ñépp ñi nga xamante ne nii ay rakk ak sëñ Amidou Mbacke moom sëñ Mamor ak ñépp rek mu ma limee xam naa mën na maa bañ a tudd ñëpp ak sëñ Sidi Mbacke mu sëñ Amidou kenn ku ci nekk jël na mbir mi xamal ko ne maay sa mag maa ko war a gàddu maa koy gàddu ba lépp lu ci waroon a diis ci moom mujj na woyof ci moom tooy. sëñ Mamadou Mamoun nag nee na amut seenuk fay ndax xam na ne lii ngeen di def ñii ci seen jiili féete mag xam nañ ne seen mag lañ ko defal seeni doom lañ ko defal ñii ci seen jiili doon wayjur ñoom it xam na ne seeni wayjur lañ ko defal seeni rakk lañ ko defal kon nee na moom mi ngi sant cant goo xamante ne nii am na fu mu tàmbali waaye ab yemu moom amu ko lam cay mooy ñii nga xam ne ñoo fi nekk di kilifaam tàmbalee ci sëriñ Abo Mbacke di baayam ak sëriñ Mbacke Anta ak ñeneen ñi nga xam ne ay wayjur lañ féete ci moom ak ñi nga xamante ne nii dafa bokk ak ñoom baay ak ay rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal seen jiili ci seen kàddu lay waxe nee na mu ngi leen di dénkaat boppam di leen dénk njabootuk seen jiili gi xam na ne sax dénkoo ngeen ko waaye nag day def warteefam joxaat leen boppam di leen déglu. nee na daal moom seenub taalibe la seen doom la seenub taalibe la seen ndigal lay wéyee bàyyee na leen boppam amul lu muy bëgg ci boppam amul lu muy bañ ci boppam fu ngeen ko jëmale rek foofu mooy ab jëmukaayam fu ngeen ne ko du fiit wan na gannaaw foofu li nga xam ne moom la ma waxoon ne ma naa ko jot li weesu na lii xëy na tolluwaay yi ma toll moo tax euh, ni ma ko bëggoon a waxe munuma ko waxe waaye ma di leen xamal ne sëriñ Mouhamadou Mamoune ak mbooleem njabootuk sëriñ Jiili Mbàkke gi ñi ngi sant bokki jullit yëpp di sant bokki taalibe yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal Daaru Salaam ñu taxaw ci taxawaay bii taxawaay bis bii taxawaay boo xam ne nii kawe na njortam lool li mu ëmbal bokk yi ci cant làmmiñam mënu koo tudd da ko yéene rek te bàyyi leen ak suñu borom ak maam Cheikh Anta Mbacke ak sëñ Mouhamadou Mamoun Mbacke mii nga xamante ne nii moo tax bokk yëpp jàpp nii ñu jàppee ci bis bi ndax ñoom ñëpp kat. sëñ Mouhamadou Mamoun lañ doon xoolee sa njiili sëriñ gaawaan lañ doon xoolee sëñ jiili te wane nañ ko ci bis bii ba mat sëkk ñoom ñëpp nag bàyyiwut kenn kenn ku ci ne taxaw nga ci taxawaay boo xam ne ne kawe na njortam nee na daal mu ngi sant di gërëm di ñaan sunu boroom ñi nga xam ne jiitu ji nañ yàlla na leen sunu boroom yóbbu ci àjjana ya gën a kawe nun ñi fi desandi yàlla na nu fi sunu boroom bàyyi. nu eggale liggéey bi nga xam ne moom la mag ñi dooroon ànd kook sunu baay yi fi nekk ak sunu mag yi fi nekk ak sunuy rak ak mbooleem njabootu mam Cheikh Anta gi ba fa ko borom bëgg a yóbbu ñu yóbbu ko fa sunu borom kàttanal nu ba ñu yóbbu ko fa jëf ci ba jëf ci lu kawe sunu jort nee na daal sant na gërëm na mi ngi leen di dénkaat boppam di leen dénk njabootu sëñ Jiili Mbàkke gi loolu daal la ne moo woon naa ko jottali ni mu ko waxee woon sax gën naa rafet noonu waaye tolluwaay yi ma fekk rek moo tax na ma ko bëgg woon waxee mënu ko lépp lu ci jub nag sunu borom la lu ci dëng ci man mu xeebu mi doon wax ak yéen la di xaadim ngay doon rakk ci sëriñ Jili Mbàkke maa ngi jégalu maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu